nangu la mu am yëpp. ngir ay position ah parce que. Euh, ma jàmba parce que ak naa ne ñun ñoo ko bañ. parce li ñu dund ci ñett at ñeenti yi suñ ginnaaw. ci emprisonnement ñu sañoon fu ñuy waxee ak tëj bi ñu ko fekkee. waaye nit ñi ñaare bu ñuy tëj ak bu lu waaj a tëj day différent bu nit di tëj moom day metti parce que nit buy tëj day toog ba mu neex ko rek mu ne di tëjal leen ko comme li fi jaaroon. jàpp presque ay six cent personnes ci benn bis wala cinq cent personnes ci benn bis ñoom ñëpp nga defal leen même PV ñëwee da koy tiire ci machine bi rek si ñu signé. Mm. nga daal di leen yóbbu garde nga daal di leen yóbbu prison. Mm-hmm. boobu boobu tëj moom tëj la boo xam ne bu amul benn justificatif. waay c'est kenn mm-hmm. bal ñu rek xaw a jege tuuti sa micro. parce que dafay tëjewul bu baax. baax na c'est bien baax na ay ca alhamdulilah. tëj moom bu amul benn ah, justificatif ah. day metti ndax li tax muy metti mooy bu nekkee ci prison. wóor ko ne moom fii du place am te am na sax ñu nekk seen place te ñoom nekk ci seen i kër toog hmm. loolu lu metti lay doon mais bu fekkee nag nit ki dafa def lu tax mu dem prison dem toog prison li muy ma ko hmm. loolu nag damaa jàpp ne man ñoom bi mu njëkkee def seen article boobu ci général bi hmm. man bi ñu leen di convoqué ci gendarmerie rek yooyu man dama ci d'accord parce que man damaa gëmoon ne pièce la rek boo xam ne su ñu leen jàppee dañuy am solidarité ci corporation. Mm. Pape Ousmane Diop Pape Assane Diop keneen ak keneen Diop. Mm. ñëpp daal di comme ni mu ko mm. amee woon 2004 ci Ablaye Wade. Mm-hmm. bi ñu ko jàppee 2004 moom ma jàmbal nan la demee mooy journaliste yi daanaka liggéeyu ne ci mbedd yi. manifester ñëpp jóg effectivement bi ñu jógee Ablaye Wade gis pression bi métti ci côté yi dafa reculer. Mm-hmm. parce que boobu li ñu ko jàppee amul certification léegi nag le fait que ñëw woo nañu leen seen journaliste enquête leen deux nekk acte bu ma parce que mbir bu fekkee mën nga koo régler te coow du jib nit du ci dem prison nit du ci gaañu nit du ci ñàkk alal man jàpp naa ne loolu mooy yoon wi gën a gaaw léegi ngeen jaarale ko ci fisc bi ngeen jaarale ko xam nga fisc moom man ak yow a nga da ngaa ko fay mhm. soo ko dul fay loi yi prévoir na ne nii ak nii ak nii ci la la yoon jaarale bu ci dem prison waree di nga dem prison bu ci warul itam mën nga bañ a dem prison nga bañ a dem prison ñu ñu tëj ci ay ay fisc du moom donc groupe de presse yi ñu ay problème du moom donc léegi nag moom li ñu koy laaj 91 millions su ma juum. waaw voilà 91 millions moom defe naa wurta nekk problème am moom Madiambal man loolu mooy li ma yaakaar. waaw ah. 91 millions yi kaay fay ko mën na ko fay automatiquement tu coow di man loolu dama ko ndax dama jàpp ne moom maanaam tolluwaayam ci wàllu am-am ci wàllu koom-koom na ko 91 millions bu ko fekkoon muy nelaw sax suñ na ko 91 millions da nga ko war a joxe automatiquement mën na ko joxe mais xam naa dafa bëgg indi benn débat public boo xam ne dañu naan. voilà ñi ngi ci ñi ngi am problème ak presse ñi ngi am problème ak fisc bi ñi ngi naan nga waaye ba tey gis naa ne problème boobu mën naa bañ a sori ndax fayal moom kuñ ne fayal. Mhm. ñu tëj la ci prison képp ku maandu ak ku maanduwul ñëpp a ci yem ñëpp d' accord nañ ne àtte baru moom fay rek. Mhm. ñëpp d' accord nañ ci loolu. Mm. ki nga àndal ak ki nga àndul ki wuteeg yow xalaat ak ki wuteegut yow xalaat ñëpp d' accord nañ ne. nit ki saa soo yore alalu nit nag a delloo. alalu la joo xam ne alalu Pa Ousmane la. alal la joo xam ne alalu ñoom soxna yi Nabakoor mi Mami Samb Papa Assane ak man mii. alal jooju nag. Mhm. ñun bu ñu demee ba ameel ñu ko. Mhm. dafa bénéficié wu ci ci suñ kaw. Mhm. ba mu bénéficié ci suñ kaw ba pare ñu ne ko ci bénéfice bi tibb ci tuuti jox ñu tibb ji mbër tibb ci tuuti jox ñu nag joxuñu ko loolu lañ koy toppee loolu lañ koy toppee. Hmm. waaw léegi nag le fait que Macky Sall jaar na fi dajale woon na leen ñoom groupe de presse ñoom ñoom euh, ñi nga xam ne ñoom moom euh, groupe de presse yi ne leen jéggal naa leen maanaam impôt yi. wala fisc yi naa leen ko effectivement dem nañ ba xool xam ne Macky Sall jéggalu leen ko. ndax dégg naa ci kenn ci ñoom mu wax ne amul fenn fu Macky Sall dafay décret wala mu bind wane ne moom effacé na bor yëpp ne yi presse la am man gis naa ci ñoom ku ko wax te kooku ku mag ci ñoom la léegi nag li tax mu woo leen wax leen ko ñoom ñu dégg ko dajale leen photo ak ñoom dem photo ak ñoom dem tey jii ñu am problème boobu da nga xam ne rek ñoom da liñ nekkoon moo sérieux wut xam nga euh, fisc man dama jàpp ne waroo di toog sax yow bañ di la boo toogee bañ fayu ko rek mën na metti mais boo jàppee ne kafe nekk moom boo ko fayul du garaaw boo ko boo ko waree fay sax boo demee ne ko jéggal ma ko mu ne la jéggal naa la ndax li nga bëgg a wax moo di euh, Macky Sall dafa dajaloog ñoom foto leen leneen la ci jublu woon lu dul wàññil leen li nga xamante ne mooy fisc bi euh, mën ngeen ma yokkal micro euh, sëñ bi comme ça dégg-dégg bi gën a neex nañ nañ comprendre mun baat bay suufe lool ñoom nii nii lañ leen yaree moo tax ñoom seen baat yi day suufe com yow yaa ñu yokkal micro rek comme ça dégg bi a neex ndax da nga wax ni leneen la ci jublu lu dul leen fisc bi waaw leen ci rek moo yàq seen dara ak it nag dañoo dañoo nekkoon ci seen dañoo nekkoon ñoom ci seen biir Macky Sall am ay mhm. bëgg-bëgg mooy moom nay def li ko neex ñoom ñu koy taggal ñu koy taggal ay maamam di ko aj ak koo ko waral le fait nekk nañu ak moom ci lii moom mu leen di defal liñ bëgg ñu koy defal liñ bëgg man damaa jàpp ne sax yemul ci moom Macky Sall mhm. Mhm. damaa jàpp ne yemul ci sax di leen jéggal ay fisc waaye damaa gëm ne Macky Sall ci boppam daan leen dimbale sax nag parce que aide la presse yi am na ci yoo xam ne ay groupe de presse lañ ci daan am ñenn ñu duñ ko ci am dañ daan ëppalante day mel na ci séddale gi bii jukki bi bi bukki bi bi bi sàmba bii ki papaam wàññi ko njëkk naa ci teg naa ci sama loxo <laughs> loolu rek moo nekkoon c'est ab uh-huh. séddaleem uh-huh. voilà man dama part personnel daal gis naa ne def ko teg ko ci yoon moom ma jàmbar teg quotidien boobu ci yoon loolu obligatoire la parce que obligatoire la mooy loi la li feek ñun suñu réew yi accepte nanguwuñu di teg nit ñi ci yoon ñuy fay ay fisc pour ñu avancer lay jafe trop parce que réew yi ñu gën a gën ñoo avancé ba tey jii fisc ñoom nit xalaatu maanaam jëmmi psychologiquement doomu aadama ya fa dëkk sax xalaatu ñoom am problème mu dem naan dañ koy négocier pour ñu jégal leen mhm. réew yi gën a ñoom xalaatuñ loolu daanaka sax boo fa demee crime la saa suñu demee ba xam ne yow mii da def fraude fiscale prison directement ngay dem te mën na la xañ lu bare bare ci sa liggéey sa liggéey mën na faa dox a toll que ñun mënuñu toog chaque jour waroon ngeen def lii waroon ngeen a fay ñii waroon ngeen a ñii te yoon wi tax loolu mën a nekk ñun mënuñ cee jaar mhm. yoon wi tax loolu mën a nekk mooy lii tax état am xaalis pour li war ci population bi li war ci dëkk bi li war ci nangam ak nangam mu man ko loolu ñun ñoo ko war a joxe te ñun nanguwuñu ko joxe te buñ jógee ngir jàpp nit wala ngir jëflante nit ngir mu joxe ko ah ñu bëgg ko politiser loolu nag euh, traduction traduction def waa nañ waa parce que dinañ ko sa question seen liggéey la ñuy def ñu wóoru leen jeexagul tey fisc bi dugg. waaw ah, même ñi leen di woolu moom ñoom it seen liggéey la ñuy def dakkal moom la woon réew. ne bu dee jàpp moom moo cee jiitu. ah mooy ni moom xamoon ne ni foofu ngeen jëm ak moom jàpp ko. xam nga ñoom même moom moom liggéeyam lay def waaye même ñu ko woo liggéey la def. Hmm. xam nga nit ñi li ñu war a comprendre mooy nit ku mu neex nga porte plainte ku la neex bu la neexee sax nga ne diw damaa bu dox suufam laal ma dama koy pal nga bind plainte dem boo demee loolu mu mënu wax ma jàpp ko ci waaye waaye plainte moom ku ne am na ci droit plainte ku la neex su la neexee pelant ku la def ak ku la defut ki lay woo itam liggéeyam lay def ki toog gisee liir benn article mu gis ni lii luy nasaxal kaaraange réew la mu woolu la di la laaj nu mu demee boo ko leeralee convaincre nga ko ci yow lii loolu jubluwoo ko ci bàyyi na la nga dem voilà bàyyi na la ñibbi nañ. Hmm. léegi nag amaan nañ beneen problème ak moom mooy ma jàmbal hmm. day ko xam ne moo ak ñoom président Sonko dañoo mës a def faire face jàkkaarloo. Hmm. faire face lañ mës a def lu lu lu président Sonko wax ci ma jàmbal dégg nga ñu ne daal Darba rek la soxla lu ma jàmbal wax ci président Sonko ñu ne Darba la soxla ñoo daal mos a def faire face wute ay camp ak i wute ay camp ba ay camp dox seen diggante man nag à part personnel sama xalaat mooy ma jàmbal jaañ ak ku mel ni moom war naa mën a des di wéy di wax xalaatam ci ci askan wi parce que koo xam ni jaar na ci métier mu doon def avant muy wàllum greffier ah ba dem am problème ci corps boobu ñoom ñu dax ko mm-hmm. kon da ngay xam ne rek kii nii bu doon ci yenn réew yu sérieux yi sax war na xam ne dañu nekk journaliste parce que yow yow li nga jàng muy sa spécialiste muy wàllum euh, justice. nga ne fa di liggéey ba ñoom ñu décevoir ne la mënatuloo nekk ak ñun parce que ni ngay doxee baaxul. parce que loolu yow ci sa ci sa tabian la bokk. Mm-hmm. loolu ci sa tabian la bokk loolu nag bu fekkee la mu nekkee woon ca palais de justice ba. Mm-hmm. di ko fa def moom la dikk ba ci journaliste moo ngi di ko def. Mm-hmm. kon ak borom. Mhm. yàlla yàlla na yéex waaw. dëgg la noonu nga ko noonu nga koy traduire. Mhm. waaye moom xam na ni amul maanaam benn taxawaay bu dëgër. Mhm. wala position bu dëgër bu mën a am empêcher état bi ak président Sonko ndax damay faral di wax ne. nit boo jàkkaarloo moom nga yor police yor gendarmerie daanaka li ñuy wax presse classique bi bépp nga téye ko ci sa loxo presse classique bépp nga téye ko ci sa loxo. nga xam ne daanaka mennam Walfadjri képp moo ci échappé woon. yu ci bari ci télévision yëpp da leen tey dans moom Macky Sall ànd ak ñoom ma jàmbal jaañ surno yi bu ma saa génn vingt et un vingt mhm. benn surno presque moom nga ciy xool xam ne lu ko cohérent la yorul borom alal yëpp ba tiyaay la sax lu gën a bari ci séefrédise yi gën a am doole dégg nga ko taxaw fee ànd ak xale ki gone ki ñu am ay xalaat yu rafet jàkkaarloog ñii ba xëy jël doole dañ doon xeexee teeku mhm. desewul lu du benn xam kon bu kon bu ñu am ak yow problème du dalaa bëgg a tëj parce que parce que dafa laa ragal ko xam ne bi nga ànd ak doole ànd ak état am xaalis am kaaraange am sécurité ba doo fay sax fisc mhm. ba doo ko fay yow te wóor na leen ñoom duñ ko fay léegi par exemple mooy jamono ka kan ah oui ah, ah, am ngeen lu leen firndeel ni ñoom duñ fay waaw lu ñu am lu ñuy firndeel mooy mm. comme ñoom ñiy yëngu ci wàllu googu te nekk ci ay expert ñoo ne leen yéen fayu leen ñooñu kay doy nañ ay doy nañ ay ay ay ah, mooy lii ah. Ah, parce que li feeñagum nii doone xanaa ci magistère Bassirou Diomaye Faye ci la war a dañ cee xam lu jiitu lii feeñ nii li ma bëgg wax mooy lii nii nii moo lay teg te am na luñ am na lu am daawul fay quatre-vingt-onze millions ci trois mois amul benn journal bu koy fay ci trois mois quatre mois mm-hmm. amul benn journal écrit buy fay quatre-vingt-onze millions fisc ci ci quatre mois yu ne loolu bu ko journaux yu doon def benn dootu benn dootu xëy génn génn waaw bu dee mënu ko léegi nii mm-hmm. bu dee mënu koo fay nag man ah, na koo fay nii man na koo fay am nga ah, xam nga fisc gis laay lu wér ni moom am na lu ah, ko xam nga li li tax ma xam gis nga gis nga groupe de presse mm-hmm. wala journaux wala lu mën a doon wala entreprise bu mën a doon bu demee li feeg yaa ngi ko gis muy xëy di ubbi di toog di jàllal ay programme muy dox muy avancé di dem xamal ne loolu ay tànk la tànk yooyu mu taxawee nag bu amutoon dootu ubbi tànk yooyu nag da cee bokk dégg nga ngay fay fisc di fay ay taxes di fay ay salaire di fay lépp di fay courant di fay ndox di fay lépp lii mooy tax entreprise di xëy di sax chaque jour doonul ne jëmmi presse lenn rek moo koy gàllankoor muy fisc déedéet te fisc doonul ne dañu la fayal fayal benn cinq cent mille franc nga ñëw fay ko am na ay yoon yoo xam ne boo jaaree négocier boo waroon a fay cinq cent mille mën ngaa fay cent mille franc mën nga sax dem ba négocier ko bañ effacé ko mën nga sax dem ba négocier ko ñu noonu ñu ñu joxaat la beneen delloo ci kanam ne la ren garawul parce que dëkk bi neexul ak ay charge et cetera et mais mën nañ bàyyi ba déwén loolu moom fisc moom doon lu metti lool lool waaye nag ku koy dajalee defe ne nag loo xam ne yaa ko moom la mhm. ah nii lay demee. ndax mënees nañoo xaar euh, ñu wàññilal ko ni mu ko nar a fayee maanaam yombalal ko fayin bi ndax waxuñu sax wàññi ko ndax ku nekk war ngaa fay fisc loolu droit la. ci koo xam ne dafa am entreprise waaye pour sauver emploi yi nga xamante ne wala ñi nga xam ne ña ngi fay daan seen doole te état bi yokku emplois la bëgg waaye bëggul wàññi. voilà xam nga waaw loolu moom dëgg la. Mhm. xam nga fisc da cee bokk ci ay loi am. Mhm. ci ay loi am da ko daf ko accompagner. Mhm. ak nit ki surtout surtout nit entreprise bi am entreprise bi état daf ko war moom mu ci taxaw kem tulaay kàttanam ngir bu entreprise bi tey donte day génn alal di ca def sax boo fàttali ko am na benn journal boo xam ne ñu ngi ko wax Charlie Hebdo ca France Charlie Hebdo Charlie Hebdo boobu bi mu defee jëfam jooju ba les frères Kouassi jaar fa ba def ñoom itam la ñuy def ba jàll état français daf ko subventionné génn xaalis jox leen na leen continuer leen seen liggéey jëmi état mooy loo xam ne bépp bépp entreprise boo xam ne ubbi na yor ay nit ñuy xëy di gont di liggéey obligatoire da ci état daf ko war a da ko war a accompagner. Mm-hmm. parce que dañuy ne état mënul parce que ma doon xool direct yi liggéey ci état matuñ un million de personnes te population sénégalaise mat nañ dix-huit millions. Mm. te ñu nekk ay fonctionnaire di liggéey ci entreprise yi ñoo ëpp sax li état li état employé di leen liggéeyloo. kon état obligatoire la ci moom moom mu accompagner mboolem entreprise buy yëngu di employé ay nit waaye nag. mbir daal moom mën a doon nay nay jaar ci yoon rek parce que lu jaarul ci yoon du dem nay jaar ci yoon lu jaarul ci yoon du dem man dama gis ne ñoom amuñ problème ak ma jàmbal jaan jégal euh, wàññil ko fisc bi man amuñ problème boobu de gis nga ma jàmbal mooy koo xam ne tey jii su ko ab baaraamam doon métti donc mu ne tànk ba dam na <laughs> <laughs> sëñ Mbacke nga ne. <laughs> boo ko baaraam doon métti mën a tànkam dam dëgg la te xëy saa yu seetaani jee ñu dóor ñu <laughs> ah. ah. Ah, loolu métti na di waaye Mbacke loolu métti na di. xam nga président Sonko na am na koo xam ne day nangam di nangam ba far ba far ñuul. day lan de. nangam di nangam am na am na ba du utiliser woon. waaw xam day kii di kii di kii ba far ñuul. di déet kay. am na am na waat ba mu utilisé woon wax loolu. ah xam nga mel loo wax yoon la foo jaar rek yoon. koy waxal la neex kay rek waaw ah, man daal da damaa gis ne. ma ma demal saar yi nii. ñoom bu ñu yërëmut seen bopp. nañ yërëm mbàkk yi ñoo am tekki. dañu baaru te li muy wax soxlaam yëpp loolu lañ xalaat ah, waaye na nga ko waxee bu mbàkke bu del fan yàgg suñu waa ji am doon nettali ci sëriñ bu mag bi mhm. nee na nee dañuy dañuy dàqe sàcc ci biti yaa ngi dégg Pape Ousmane sàcc bi ñu koy dàqe coow laa nga nekk ci biti coow li riir mi riir mi bari mhm. sëriñ bi daal di woo bëkk néeg bi ne ko waaw coow li may dégg ci biti moom ba jàmm la <laughs> eh, bëkk néeg bi ne ko ah sëñ bi de coow li ci biti de